ayca ndeysaan combat bi nekk ci kii bi géer gi moo nekk noonu moo war a dox ci diggante Baye Wally ak Moustique ñu ngi ci biir géew gi di def seen i débat déeb ndeysaan mu ngi noonu Baye Wally ak Moustique ñu ngi noonu ci biir géew gi di bëggee bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Lamine Diédhiou Mamadou Lamine Seck maa ngi lay bëggee baax di la ziar

nee naa grand combat grand combat ñu àndoon ak nga xamante mooy Ouzin production mu ànd ay sponsor ku ci mel ni e TDR Events établissement Touba Darou Rahman waaye mu ànd ak ñi nga ñooy Millennium assurance waaye duñ fàtte tam ki nga xamante mooy la lion la guerrière muy Catalina borom Tampico borom King borom Harmonia. Chez Catalina nekk di wax jaajëf di la bu baax a baax a combat bi mooy grand combat bi dox ci diggante musique ak di bu ñi nga ne xel internet bi nga ne à travers partout dans le monde biir géew gi arbitre baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ coup de sifflet moo boole coup de sifflet moo leen amul gàjjante amul màttante amul dama baaraam ñu noonu ñoom ñaar ki bàyyee ko caaray ki bàyyee ko tëngit ay ca ña ngay lewtoo musi ak Baye Waly Baye Waly cokkaas na musi ak Baye Waly jàppante nañu nee naa la duñu xeex Baye Waly ak musi lan la Dar rëbb si suuf eh vite fait bien fait moom Baye Wally mu ngi noonu Baye Wally Baye Wally ngi noonu Baye Wally jël na sees ba Baye Wally jël na sees ba xale bi maa bëggoon sees bi mu ngi noonu moom walla Baye Wally ngi noonu waaw maa lay fay matu di la ñaanal jàmm waaw maa ngi ci jàmm bu wér waaw non ñun mooy loolu yàgg nañ ci làmb quoi ndax dañ galéeru ci lu dund nañ ko ci kon bu rek la mais ñun moom luñ mën am duñu am pression ci làmb waaw chaque jour dañu dal tek ak tey ba yàlla nu ñu ndam waaw. non yow Maodo doo ñaari combat yi day ñëw am nu fa demee teg affaire bande affaire jaay prek mais démb ci guddi laa ko na mbër combat bi benn jooy la amul yooyu waaw mag la nag jox ko lim moom mais bu desee lu dul arbitre soufflé day gaaw. waa di sant waa Tëngéej yëpp Rio. waaw tur tengah Tëngéej yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waa di sant waa ala ba nag sama waa dëkk waa Touba Toul jàpp nañ ci combat bu baax waa Kolda waa Casamance Bayax Tor Jende Kër Mbir di sant ñëpp matu billaay walaay waa ñoo la raw yow di ñaanal waa tekki ma tekki ma TV waa di leen ñaanal jaamu ñoom it yow kii moo tax ma jëkkër yëre dama sama jëkkër laa bu ma man ma nangu man maa dugg fii man maa gis kii sama doom la kii maa tax ma am yére kii ma dama war a tabaski yow boo daan yow ba barke sëñ Tuuba Mbàkke mais man ñu ma may ma dugg billahi wallahi ñun tënkee nañu dëkk mais ndax mën na lu ne. keroog ak ñaari mbëtt du nekk su ko combat ñu nëkkal ko ñun si àll bi la ñuy nekk. ak ñaari mbëtt rabu yaay nii. Eh, borom bi cal caloon na nga di si ay see baayam. Eh, tëb na dee ñu dogalul loolu. Eh, ñun bor dañuy lekk si góor jaar ko yëpp cokkeer ak lépp ñun ay rabu lañu ñun ay rabu lañu de. Waly ñëwaatal ci li nga. mais nag man xam nga laa bëgg nag li ma bëre nii moo gën a tuuti li may bëre musuma dégg mu ñëw macha allah mais nag ñu bëre mais daa mel léegi làmba nekkatul affaire de jàmbaar quoi affaire de nooy la Matar Ndiaye ak nii yor sama peut-être potentiel moo la yor mais comme seede da ngay ruux barki Serigne Bamba borode bi xam nga jaaruwaay la woon nii rek mais grand frère la man dama bëggoon bëre xam nga du ñii quoi mais làmb a ba pare jël 16 bi toog ci loolu la 16 ah, maa Modou Lo mooy roi mais man maay presse bi nañ ma nangul loolu maa ngi ne booy maa borom 16 bi maa ngi nii billaay walaay baa walaay ngi nii borom 16 bi man yow kenn du la wax après ñu leen tëgee da nga jàpp ñëw tëgee ñu dem tefes lakka jën lakka jën ma mat la dañuy def ay déggoo ma rek yaa bu bees taax kan me tëngee ma indi leen tëgee ñëw leen déggoo ma rek ñëw leen jën yu mat yaa bu bees taax bu mu laal glace